dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo njiitul Pastef di Ousmane Sonko jamono ji ma ngi ci guddi gu bët sëddëgul tamandu ko ëpp ay buum ndax mboolem yéen yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéen boo ci laal wala boo ci xool nga fekk fa turu Ousmane Sonko ñu koy mbibi fore ndax benn xale bu jigéen bu tudd Adja saar moo ko tuumaal ci lu jëm ci wàllum viola xale bu jigéen boobe nag ci benn salon de massage bu nekk ci Dakar ci Sacré-Cœur fa la xale bu jigéen bi di liggéeyee la mu def ca ba nga xam ne jébbal na ko waa gendarmerie bu Colobane section de recherche nee na Ousmane Sonko da doon ñëw ca salon boobee doon maase wu doon noddante aw yaramam benn bis la Ousmane Sonko ñëw saako ànd ak moom xale bu jigéen bi nee na Ousmane Sonko yegg ci kawam moo tax mu daal di koy porte plainte mu muñ ko ba sonn mënatu ko muñ moom jiitul Pastef di Ousmane Sonko ni ki démb daal di indi ay tontu ginnaaw bi ñuy mbi fi foore aw turam fenn fu nekk turu Ousmane Sonko njiitul Pastef di wa jaba jonge di wax ne moo violé benn xale bu jigéen moom jiitul Pastef la mu tontu nee na lépp li nga xamante ni moom la ñu koy waxal lépp ay kàcc la ay fen la amul lenn loo xam ne dëgg la ci dañu may comploter ndax ay xarit yàgg nañu maa wax na ma mooy tulu état bu Sénégal mën nañu laa complot lu jëm ci wàllum jigéen a moom Ousmane Sonko di dalal xelu ñi nga xam ne ñooy ay militant ma nee na bi ñu paree ci ki nga xam ne mooy xalifa Sall Karim Wade leeroon na ko nañu ne état bu Sénégal lépp lu mu mën ngir sank ko fii ak atum 2024 di yegg si ñu ko def waaye nag nañu dalal seen xel yéen kaay gi di direct news nee en tout cas li am ba des mooy soow mi am na lu cay ndax ki nga xam ne moom moom salon de massage boobee moom nag seetal na Ousmane Sonko ba mu seet wecci ndax nee na Ousmane Sonko musu faa ñëw di fa wax waxu ñàkk fayda bu ñëwee ci ab sées toog ñu noddal ki aw yaramam xale bu jigéen bi nga xam ne maanaam moo tuumaal Ousmane Sonko kookee moo jiwul te leer na nañ ne dañu ko comploté dañoo fay xale bu jigéen bi loole la patronam bu jigéen bi daal di wax ndax sax moom mi nga xam ne moomam salon bi nee na dàqoon na xale bu jigéen bii di Adja ci ginnaaw ba nga xamante ni Ousmane Sonko ñëw na fa na ko muy wax waxi téléphone bay wax mbirum éjaculation ba tey ci biir journal enquête nee na en tout cas li nga xam ne moo am ci mbiri Ousmane Sonko doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne fu ko waaye nag daan na koy passé lii nag ay ndëgg sërëx yu ñu laalal Ousmane Sonko la wala nag li ñu koy tuumaal moom njiitul Pastef da saa taq ba nin ca bat Moussa Diaw di ab jàngalekat nee na en tout cas li ñuy tuumaal Ousmane Sonko mën naa yàq ab deram mën na ko yàq lu bëri ci lu jëm ci wàllum politique yéen kaay gi di Les Échos ak Source A nee na gendarmerie bu Colobane danañu yóbbul Ousmane Sonko ab plainte am ci week-end bii yéen kaay gi nee na en tout cas li am ba de sàll mooy Ousmane Sonko dana wuy ji wala du wuy ji ndax nag war naa mën a dem seetal ab deram su ko neexee tamit mu ne ab député la te bu boobaa assemblée nationale ngir ñu dem fa dindi immunité parlementaire bu Ousmane Sonko comme bonjour ba tey ci biir yéenekaay gi du source a nee na Serigne Bassirou Gueye mi nga xam ne Ousmane Sonko yàgg na ko tuumal ne procureur Macky Sall la jamono ji nag ndax procureur ba Bassirou Gueye moomee vulva ndax yurut yat wi ngir mën a fay ba doyal ci kaw Ousmane Sonko yéenekaay gi délibération bàyyi mbirum viol gi nga xam ne tuumaal Ousmane Sonko waaye nag wax ci geneen viol koo xam ne xeewul Sacré-Cœur waaye caaray sur mer la xewee foofee dafa am benn waaye bu tudd El Omar Waara moom nag dañu koy tuumaal ne dafa drogué violé ba pare ëmbal benn jarbaatam yéene kaay gi di réew mi quotidien moo tim xëy ñëw wax ci geneen viol waaye nag viol gii moom xewewul sax Sénégal ca diwaanu Paris la France fa la ñu réew mi quotidien yóbbu ndax nee na am na benn candidat présidentiel 2017 tuumaal ci lu jëm ci wàllum viol ca diwaanu Paris la France te moom candidat la woon ci élection présidentielle 2017 en ne moom la na loola yéen kaay gi xëy séq waxtaan wu yaatu ak Arfan Thiaré boo xam ne ràññee nañu ko loola ci lu jëm ci wàllum jazz wàllum soul wàllum rap wàllum acoustique ak wàllum reggae daan nay xëy fàngam ci yéen kaay gi di réew mi ko di cee séq waxtaan wu yaatu ak journaliste yi wax na compétition hip hop bi nga xam ne organisé woon nañ ko ci Sénégal 2017 jàpp 2018 moo ko gañe woon wax na ci jafe-jafe yi nga xam ne am na ko ci mbir mi wax na ci clash bi nga xam ne moo am ci diggante rappeurs yi yéene kaay gi di Sud Quotidien mbir moomee moom wax ci woppi coronavirus daan nay wax ne accord yi nga xam ne état bu Sénégal ko ak jàngalekat yi ak coronavirus bi yokk ci réew mi soo moytuwulee dina andi ay gàllankoor ci nag vacances yi nga xamante ni élèves yi jeexal nañu ko yéene kaay gi di Libération xëy ñàkk nu Sénégal première phase bi lu toll ci 20 pour cent si Sénégal yi danañu leen ñàkk yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy génn nañu réewum Sénégal yóbbu ñu sa Mali nee na ñi nga xam ne la ñu tumal ne ay jihadiste la ñoo fa song soldaaru malien yi baray fu lu toll ci fukk ci ay nit stade yéen a kaay di wax ñetti choc yoo xamante ni am na ci dénd Europe ndax Liverpool dina laale ak Manchester City Juventus de Turin wala laale ak Rome Olympique de laale moo tee mu